dañ koy doore ak njiitu mu président Bassirou Diomaye Diakhar fay bu yàggul dara daal dinay dajale inspection général d'État ngir nag ñu amal ab audit ci lu toll ci juróom-ñaar fukki direction ak ay agence ki fonds public euh, ngir mën a saytu bu baax a baax euh, mbir ma ni liggéey ak koppar yay dugg lépp nu mu demee euh, lu ni mel nag tax na sax ba mission d'audit yooyu jàpp na ni fan yi di ñëw dinañ ko boucler fësal ci nag rapport boo xam ni daal soit day joxe ay baaraam yi tuuma wala mu nekk rapport boo xam ni daal day leeral lu bare bare bari jëm nag ci liggéey bi nga xam ni itam Cour des comptes amoon na ko ak OFNAC loolu nag ki nu ko xamle di quotidien bi di le témoin ci euh, édition alxames bile journal bi itam dinu xibaar ni am na itam mboolem rapport yoo xam ni itam des na génn ngir nag euh, ñu jëbal ko procureur de la république loolu lépp nag ña ngi cay xaar lu leer naññ Euh, avril lañu ko nommé ci bànqaas bi nga xam ni mooy office national de l'assainissement et du euh, Sénégal di ONAS di bànqaas boo xam ni day saytu wàllum ndox meek euh, ay toog ay kanaal xeet gu ni mel moom Cheikh Dieng moom nag ñetti weer dong la def ci boppu bopp bànqaas boobule démb lañu tekki ndombal tànkam ka ko wuutu di ab ingénieur hydrologue di seeni jéen ginnaaw nag ba nu fësale communiqué conseil des ministres ba Euh, décision bi président de la république euh, Bassirou Diomaye Diakhar fay daal di koy annoncé ci àllarba ji fanweeri fan ak euh, benn ci weeru suliet coow lu bare bare bari ak ay xel ñaar judd ci askanu sunu gaal jëm nag ci tekki ndombal tànk loolu ñu def Cheikh Dieng ñu bari kenn ku ci nekk rek yaa ngi indi ay supposé ak hypothèse di teg ngir nag mën a xam décision bi nga xam ni njiitu réew mi daal dina koy jël waaye sournal bii di laas xibaar na ñu daal ni mbir mi moom yéeme na ndax nag euh, tey ci alxames ji waa euh, fësal na daal ni Cheikh Dieng njot nañ ni daal na mu doon doxalee moo gàll goose ndax nag euh, gis nañu ay wéyjuram ak i militant am ak i dëkkandoom yow mu bokkal ab diwaan ca quartier Jidda Caaroy Kaw ñooñu ñëpp rek dañ leen a recruter ci bànqaas boobu di ONAS te li ëpp ci ñoom kenn amu ci expérience lu mel nag journal bi loolu la xamle. nee na daal li ci gën a doy waar mooy mbir mi ah, ngir nag ñu bañ koo leeral ba mu yegg ci cëggal guy ga ah, moom ah, ki fi nekkoon ab responsable ci parti bi di PDS ca diwaan boobule te daal di rallier ci jomaay président bi ñuy waajal élection gi loolu mel nag da koo daal di dëxëñ ngir nag bañ koo leeral jëwriñ ji ñu dénk wàllum ndox ak i assainissement di kilifam di Cheikh Tidiane Dieye loolu noonu nag su su nee na daal li tax daal ñu dàq ko mooy lii waxtu win koy dàqe moom Cheikh Dieng ba nga ca diwaanu Touba Mbacké doon def ab visite euh, de terrain ca antenne régionale ONAS ba ngir nag doon euh, saytu liggéey bi nga xam ni amal nañ ko fa ngir nag euh, itam def ay prise de contact par rapport ak ña nga xam ni ñoo fa nekk loolu noone nag sournal bi xamle nañu ko président moom nag Cheikh Dieng ba nga xamee ni kàddu gi daanu na yéem na loolu askanu Sénégal waaye ñaari këri xibaar yi daal nee nañu nii la mbir ma demee leneen itam jur ay polémique ci askanu sunu gaal mooy keroog bi nga xam ni conseil constitutionnel fësal na ab rapport jëm ci payoor gi nga xam ni moom lañ jiitu réew mi di am di Bassirou Diomaye Diakhar Faye toll ci ñeent million ak lu teg loolu noonu nag sénégalais yu bari waxtaane nañ ko grand place yaa mbedd ya kenn ku ci nekk rek yaa ngay xel ñaar ci bili salaire tax na nag ki fi nekkoon directeur général bu soldu di Yves euh, moom nag yëkkati na cay kàddu moom euh, six Émile Émile Charles six ngeen baal ñu yëkkati na cay kàddu daal xam le ni daara yokkuwu ca loolu Bassirou Diomaye fay fësal te conseil constitutionnel fësal ko ci journal officiel bi noonu la demee euh, njiiti réew bi fi nekkoon di Macky Sall loolu la doon am amut lu ca yokk amut lu ca wàññi lu ni mel Émile Charles six nekkoon directeur des soldes ñëw na ca ca na mu gën a yaatoo ngir nag euh, fexe rek ba teggi tuuma yi nga xam ni li ëpp ci sénégalais yi ña ngi koy def jëm ci boobu salaire waaye xel ñaar gu bari gi nga xam ni itam ña ngi koy def jëm ci wàllu woowu nga xam ni fësal nañ ko jamono ji ñu génn ci journal officiel ka ko def di bànqaas bi di conseil constitutionnel. brigade territoriale bu Kaolack daal dina ñuy teg loxo génn góor ma ngay wuyoo ci turu Igreg Sangaré moom da doon bay yàmba ci ab jardin boo xam ne daal da koo defar ca ginnaaw këram ca Ndofane moom nag ginnaaw ba gaay exploité ab renseignement daal. Euh, ci liggéey boobu nga xam ni yoon nanguwu ko benn yoon euh, way takku der ya fare ca commandant Adama Mbaye daal dina nuy dem nag ca tool ba ngir nag teg ko loxo way sandarme yi ba nu ñëwee daal buddi nañu bépp gàncax boo xam ni ji ko fa ci wàllu yàmba lépp rek daal dinañ koy buddi tool ba nekk nag euh, li xàll wu yaawoo xam ni daal leer naññ seen web moo nu xamal lu ni mel góor gi nag mu ngi làkk lu toll ci juróom-ñaar fukki at ak ñaar daal dinañ koy teg garde Euh, locaux ya brigade territoriale bu kawlax ngir nag yokk ab lanket ba mën a xam euh, jumtuwaay bi mu doon def lan moo ko waral ak naka la mën a tolloo ci at yu nii di ji yàmba ci ab toolam sinebar gi nga xam ni gune yi dañ koy bunnuti di di seenam xel di rëbëjoo ak ñuy surexcité loole lépp rek des na ko gëstu ba am ci lu gën a leer démb ci àllarba ji ñaari téeméeri passager ñoom day xaw na ñoo dugg nag ci guuta ngaas goo xam ni day leen dem këris ba tax na bés set bu set ca aéroport international Blaise Diagne ndax nag ñoom nee nañu daal fa lañu ne am yi jafe-jafe te kenn am assisté wu leen euh, mu mel ni daal fàtte nañ leen sax ñoom loolu lañu gis ñu nekki ci ay difficultés yu bari madame Jacqueline Gomis di kenn ca passager ya Presse Afrique taataan ko ay micro nee na daal ñoom ña nga woon ca aéroport international Blaise Diagne ni ki démb ay gune yoo xam ne xiif nañu mëgg ñu mënuñoo lekk ñenn ñam wopp nañu nee na daal li fi xew kenn mënu koo leeral waaye li ñuy wax rek mooy vol ba daal lan ni leen woon day départ onze heures ñu toog ba douze trente gisuñu dara responsable yi ñëwuñu leeral leen nee na ñu itam noom joxe nañ seeni tur euh, def nañu lépp lu ñu waroon a mën a def lu ni mel nag dem Gomis moo ko xamle muy wax daal ni ñoom situation bu doy waar lañu doon dund ñoom passager yooyu ak tout tànk yooyu amoon ay jafe-jafe yu tar ca fu boobu barab euh, ñenn ña sax am jafe-jafe lekk ñeneen ña am jafe-jafe paju euh, lu ni mel nag tax na daal ba moom ma ngay xamal passager yi daal ni ñi ñëw 17 heures 18 heures war nañoo jël seen avion roppalaan ci guddi gi waaye ñi nga xam ne ñoo fi nekk te dund coono gi te lekkuñu benn yoon ak ñi tawat ñoom ñu ngi fi ba léegi kenn euh, jàppalewu leen te kenn gëstuwu leen ñu waxtaane wàllu politique ay démission yu bare bare bari ñu nemmiku ko ci parti bi di république euh, des valeurs réewum ngor euh, ki ko def nag di Cheikh Oumar Ndaw nekkoon coordonnateur national bi yor wàllu gune yi waaye mu bokk ci membre cellule communication bi les parti daal dinay dem moo fukki nit ak ñaar kenn ku ci nekk nag tekki nga sa ndombal tànk lu nu mel nag tax na ba ñoom ñooñu fas yéene daal dummóoyu Thierno Alassane Sall ndax raison yi tax sax ñu dummóoyu ko nee nañu daal euh, ñoom mëne sukkandu cee àddu waaye Cheikh Oumar Ndaw moom moom àdduna ci nee na daal rëccu na waaye nag euh, doon militant yi nga xam ni ñoo nekk ci parti boobu waaye lu toll ci juróomi at daal ci seeni ndimbalul bopp ak seen i euh, débbu débbu fexe nañ daal ba parti bi gën a yaatu waaye daal ak jaaxle ak euh, loo xam ne kenn ne su ko comprendre loolu dong lañ ca jëlee ba na daal ña ngay tekki seen dombal tànk ci émotion ci bile partie daal di beraat weleen yoon bés bi le jour ñoo ko xamle ba nay ci diwaanu Thiès itam am na ñeneen ñu tekki seen dombal tànk ku mel ni Massamba Diop ber na aw yoonam ku mel ni Abouba Demb ma ngay yaatal ab mouvement mbooloo mooy doole ngir nag moom mu gën a mën a taxaw bu baax a baax askanu Cité lami ci diwaanu Thiès waaye askanu Thiès gaay kon nag Thierno Alassane daal jamono jile partem ba ñu bare bare bare ña nga samp seeni xel kenn ku ci nekk rek wut foo aw fanweeri fan ak benn ci weeru juillet mairie Thiès ville ak euh, dëkk bi di Sébastopol bu nekk ci Russie daal di nañuy xaatim ab euh, accordu partenariat bu am solo docteur baba kër Diop ak kilifa yi ñoo ko amaloon niki démb lan ñu cay saytu daal mooy fexe ba yombal seenum njënd ak njaay waaye seen cosaan ak seen aada. ak nekkinu doomu aadama yi rawatina askanu cees mu mel ni sax coopération internationale bi li xàll na yoon woo xam ne dafa dëppoo ak gis-gisu docteur Babacar Diop ci lëkkaloo gi muy lëkkaloo ak Russie waaye nag euh, taxawaay bi nga xam ne am na ko ngir nag euh, mbir mi daal am njariñ loolu ci diwaanu Thiès maison d'arrêt correction bu Diourbel la ñu jëm foofa day am na benn waay bu fa faatu ni ki démb ñu ni nag euh, amoon na juróom-ñaar fukki at ab détenu la woon boo xam ni daal def na luy jige at moom nag dafa daal di jekki-jekki rek euh, mel ni kuy kiris euh, ba mu fa jugee daal ca la per de connaissance ñu ñëw fekk mu daal di ñàkk bakkanam loolu nag euh, premier secours yi daal ñoom la bàyyi daal mooy famille ba ña ngay naqarlu ci génnuk àdduna waa jile te itam ñuy sàkku daal ab ci am ca bu ko defee ñu xam fan la wan leen di mujj ak ay gëtam ci wàllu kilifa yi ñoom day recommandé nañu thèse mort naturel waaye amuñu genn kàddu gun ca teg mu mel ni forum du justiciable daal ñoom la ñuy bëgg daal mooy ñu ñoŋalaat bu baax a baax kaso yi waaye nekk nu euh, prisonniers yi ñu koy bàyyi xel saa su nekk ak euh, yàgg gi ni yàgg ci kaso yi njiite réew mi Bassirou Diomaye Diakhar Faye la ñuy jeexale moom day tey jël na roppalaan wuti ca Nouakchott fas yéene teewe cérémonie d'investiture Mohamed Ould Ghazouani te réewum Mauritanie daal di koy tabbaat ca bopp réew ma ginnaaw ba mu fa bi mooy ñaareelu mandaam ci diirub euh, juróomi at gannaaw ba mu gàñee élection yooyu kon nag mbokk yi lii moo gënoon a fës ci xabaaru bés bi ñu amoon mbégte doon leen ko yaatal di leen ko faram-fàcceel ngeen koy teelu foo leen mën a ne ci àdduna bi ñu ngi leen di jaajëfal di leen wax di daje ëllëg ak suñu yeneen jotaay